ak Siteu. combat bi seeg combat bi. waaw waaye dafa may déglu fële bu ko daan. man <laughs> du ma ay dox yooyu muy doon muy daan. te teel nga may. te ngeen gis nga prise tas bi. waaye tos waaye. dangaa may der bu sonn rek. waaw dëgg la. don de sang. billaahi. ndeysaan ndeysaan. teewul mu xam lu mu doon. ñu yëpp talent boo xamante ne àdduna ñu ko koy coow. dëgg la waaw mu nekk suñu produit ñun doomu jaamu la. kon dañ koy ñaanal lu mu bëgg moo xam. ku teg bëtam xam